bismillahi irrahmani irrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman duunaka minni ayyuhal muriidu nasihatan li saalikin tufiidu mu ne ko duunaka jëlal minni mu tukkee ci man ayyuhal muriidu yow taalibe bi nasihatan ak laabire goo xam ne tufiidu dana jariñ li saalikin ñeel aji sóobu ci yoon yàlla sëriñ bi nee na ab dénkaane ngii boo xam ne mu ngi jóge ci moom jëm ci bépp taalibe te laabire la goo xam ne képp ku bëgg a sóobu ci yoonu yàlla dana amal njariñ alayka bi sabri wa bil aadaabi in taqsidil kashfa anil xijaabi mu ne alayka dénk naa la bi sabri kii ngay muñ wa bil aadaabi ak ay teggin in taqsid njéem da nga jublu alkashfa ak wuññi anil xijaab ci kiiraay la su fekkee daal da bëgg kiiraay li dox sa diggante ak kumpa yi su morom dindi la ko na ngay muñ ci jaamu yàlla gi ngay def te muñ ci wattandiku ak tere bu ko defee lépp nga booleek ak i teggin wa xalilil kalaama fi lfuduli in taqsidi ridwaani yaa xalil yi waxali li na nga néewal alkalaama wax fil fudóori ci caaxaan in tax sit yéen da nga jublu aridwaana ngërëm la yaa xalili yow sama xarit waxi caaxaan daal loo man ci néewal ko na ko néewal bu fekkee bëgg nga ngërëmul yàlla ndax ngërëmul yàlla kat lépp lu waaye di wut ci lu baax ma nga ca biir wadum ala zulli wal iftixaari wa bitawaaduhi wal inkisaari wadum na nga sax ala sulli ci nangoo toroxlu wal iftixaari ak aajewoo dellu ci sa borom lépp nga wéer ko sa borom wa bitawaaduhi ak ci toroxlu wal inkisaari ak damm dammul foo toll daal ngay bañ yëkkat sa bop di toroxlu ci kanam sa borom nang ko saxo wajahidin nafsa ala ruqadi si kasratin qaka sul ibadi wajahid nga nga jihaadanteeg an nafsa bakan ala ruqadi ci yandoor si kasrat borom ak bari wa qaka na fegal sul ibadi borom jami nga noton tek sa bakan ba wañi nelo yu bari ngay def wa wa suni suma bina zannaka dahran hasini mune ne waktum ngay nubu duraka sal lor lor ji nga amee muy li la naqari wala loola metti fexeel ba ku ko mënta ñàkk yëg bu mu ko yëg walisaanaka sawlaamiñ ux suni denc ko foo toll na ngay denc sawlaamiñ lu dul farata bu ko wax wala loo xam ne amul njëriñ su ma ensini topp rafetalal bi naa ci nan ci nun sànnaka sa njort dara ndiiru jamono foo toll ngay rafet njort ci sëriñ bi itam jàpp ne daal lépp lu baax ma nga daje fi moom soo dee wut lu baax daal soo saxee ci ndigalam bàyyi ay tereem loo doon wut ci lu baax lépp mën nga ko amee foofu waaye bu ko sédd feneen wa kullama minna raayta fasbira walaw sananta anna fiha darara wa kullama lépp loo xam ne raayta gis nga ko minna ci nun te muy lu la jaaxal fasbira muñ ko rek walaw sananta doonte jortu nga anna fii naka nekk na ca loolee darara lor sa xel mu gàtt tax nga gis lu nekk ci sëñ bi nga defee loora lor la lu mu la digal muñal rek te xam ne boo ko toppee da ngay jëriñu li anna maa li nafsina nuhibbu nuhibboo laka hadaana rabbu li anna maa ngir naka la nga xam ne nuhibbu dana ko soppal li nafsina ñeel suñu bopp nuhibboo dana ko soppal laka ñeel la xadaanaa yàlla gindinu arrabu buur bi ndax li mu bëggal suñu bopp dong lan la bëggal kon nag duñ la digal lenn loo xam ne sa njëriñ nekku ca wa in tuxaafisaatu laaxi rachada wa in adantaha fara xibir rada wa in tuxaafisaa soo wattoonteeg dénk bii mën a dénk de tulaaxi da nga taseeg radasadan ak njub waaye wa in adantaha boo ko sàm sànkee nag faraaxi xib ba nga fuglu aradaal kale lii ma lay dénk de soo ci saxee ak njub rek lu baax dong nga ciy taseel waaye soo ko sàgganee baye ba ngay séntu safaan ba muy alkale